Ibrahima Fall bokk na ci euh, ñetti ndaw yi ñàkk seen bakken euh, ci accident bi amoon euh, benn fan ci weeru novembre accident bi ñeel cortège bu Ousmane Sonko moom nag xale la woon ba muy dëddu bàyyi na fi benn soxna buy wuyoo ci turu gàmmu Diop daanaka ñoom seen sëy ab diir képp la ay bés yu gàtt gàtt moom gàmmu Diop lépp luy naqaram ak ni mu dundee loolu dénk na ko Marcel Farba Maroun ñu dem xool élément bi. mbir bi moom dundee naa ko lu tiis parce que affaire bi lu tiis la lu ma métti la tamit lu tiis la lu ma métti la tamit. fas yéene ànd ak yéen ci xibaar yi la ca gën a fës di ñaari doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ñeent yu ci jëlee ay gaañu gaañu mu amee ci accident bi nga xam ne convoi bu Ousmane Sonko def na ko accident ba amee ca fay tolloog Nioro diwaanu Ziguinchor la ñu jóge woon ca la ñu defee kon boobilee accident. ma yaakaarul woon ni tamit dina am bi ma ko yëgee moom choqué naa trop xaw ma ma woon a gëm ni tamit ni sama borom kër moom ci accident bi la bokk ba tey jii su ma toogee damay rêve ni ba xam moom ci la bokk wala déet jour biñ may annoncé décédé am daa mel ni jour boobu la nekkoon su neuvième jour de mariage mariage yàlla dafa dogal sama yaay daf ma yónni woon marché après ma dem dikk ñëw doon ko toggal di ko defal yëpp ci ay vers dix-huit heures ma sangu solo nii damay dem sama rakk bi yóbbul ko fourniture mi après ci la ma woowee téléphone ni ma woon ma Pa Ibrahima dama ko soxla ma jënd woo ko mais day sone rek jëlut si laa ko woowaatee ni ko manqué woo mais dafay sone rek jëlut ma lan moo tax nga naa la woo Pa Ibrahima mu ne ma parce que dama leen a bëgg a defal surprise yow ak moom après moom magam mu woo ma ni ma kañ nga gëj a dégg Pa ma ne ko biir ci guddi ci ay minuit de mujjant si nañ mujjee déggante ma dugg mu woo sama papa sama yaay wax leen mbir mi man ma laaj ko lan la mu commencé di ma waar daal affaire yooyu si laa commencé ne ko ndax dafa am ko dee mu ma noonoo kenn deewul mu ma même bu fekkoon dafa am ko dee tamit lan la lay def ma ne teg téléphone soo ne mu dem wuy ko ma ñëw laaj sama yaay sama yaay ni ma du dara ma insisté mu ne ma Paa Ibrahima moo def accident yàlla def na la gën moment boobu nag xamu fu may nekk timit doon naa yuuxu doon ko métti lu et tout sama doon ma defal naan ma muñal te xam ne yàlla suñu borom bu soxlaa keneen ku soxla ku ne dangay ñàkk ba tey métti na trop nag mais nag ñu koy jéem a dund rek di sant yàlla. maag Pa Ibrahima fii nañ xamante suñu kër parce que sama mag dañ ko doon takk vingt 27 décembre je me rappelle très bien après ci la ni ma dama jëndali ma batterie yu muy def ci euh, appareil bi ma dem utali ko batterie ñëw muy photo daal ba mu ne ma yow yaa ci des comme léegi yow album bokk goo ci ñëwal ma photo la nga ci la ma photo ci guddi yi mu ne ma jox ma samay beñe parce que damay ñibbi la dem waaye jox ma sa numéro parce que yow ko baax na gis naa ni may toppatoo ak yëpp ma jox ko sama numéro xaadim ne ko kii de rakk Moussa la mu ne ko ah kooku de xam naa ko ci nañ xamante noonu ba yaayam bi mu décédé ñu daan wax téléphone ba ay 2 heures du matin dem tëdd ma naan ko muñal yàlla moo bindee ñi te ku soxla moom bu soxlaa keneen ku soxla ku ne dangay ñàkk ma daan ko xelal daal di ko wax ci mbir yu bari ba yàlla dogal li muy dogal nag man ak moom ñu nekk en relation après nag weer koor la fi ñëw waxtaan ak sama papa ni ko daf ma bëgg a jël soxna mu ne ko buñ korité ba pare dinaa fi yónnee yàlla def nag buñ korité ba pare yónnee ba mois de octobre bi si nañ ma ko mayee nag mu doon sama borom kar waxtu julli gëm suñu boroom te timit suñu boroom du ko boole kenn yàlla dafa dogal jukko yooyu mu nekk ci moom mu nekk ci man timit mu daan ma seddeel samay jukkoom ma daan ko seddeel ay jukkoom te timit yaayam daal moo ne ko royukaayam nee na moom lu muy def lu ne day xool ci yaayam nam daan doxalee en tout cas daal mënuma wax ci moom ndax parce que li ma xam ci moom yëpp bari na ma daal wax ne bis boo ñëwee sama kër ma a yow nañ def ay projet naa la defal soit ngay commerce wala ngay def formation li ma gën a neex ci mbir mi dañ ne bis boo ñëwee fii dañuy jël werd werd tijaani man ak yow mun ma werd bi célibataire du ko jël maribataire moo koy jël naa ko incha allah bëri woon nañ ay projet yoo xam ne bëri nag tegoon nañ ko nag mais daal ñaar yooyu moom moo ko gënoon a intéressé parce que nee na bëggul man may toog ci kër gi di togg di yàq di bale di fóot moom bugut femme boobu il faut moom bu jógee dem liggéey jabaram dem liggéey ñu wàccandoo kenn ku ne xam nan ngay réagir waatee leneen li liggéeyam daka daan defee comme ni mu bare timit day teel a jóg guddee wàcc parfois dama naa ko pa Ibrahima su ma ko woowee téléphone doon noppalu man ma lii il faut ma àggale ko ba pare du ko tëdd ndax sinon seen borom sooba mën nañ koo soxla wala leneen mën na ko cay yàlla yow bëgg nga liggéey mën ma timit moom laa am comme liggéey bi laa am kay naa si jàpp bu baax rek waaw jàpp ci bu baax ndax yàlla baax na yàlla waxul kenn dara merci beaucoup merci Marcel Farba Maroun ci euh, document bu am solo boobu lee mu jag leen ñu moom soxna soo si di gàmmu Diop di ko ñaanal encore une fois yàlla may ko xolu muñ bu baax a baax Ibrahima Fall ak ñeneen ñu ñàkk seen bakken ci accident boobu lee di ñaan suñu boroom jéggal leen àtte leen ci yërmandeem xaare leen ci aljana bi euh, gën a kawe euh, Fatou ne Dem gis nañu soxna la Ibrahima Fall li ñu yëkkati ci moom mooy ndaw la woon ku bëggoon liggéey la ku jàppoon soxnaam la ku jàppoon tamit ay way juram moom xale bu jigéen bi jamono ji soxlawul tam ñu gën koo taxawu parce que metti na ñu may la borom kër daanaka nga toog matul sax ñaari semaine mu dëdd ma ngoog ñu gën koo taxawu soxna naa naata wax nga lu am solo fi nga daaneele noonu ñu gën koo taxaw rawatina ci bu ñu nekkee societé bu mel ni suñu société ndax ku ne xam lu ci biir duñ ko ragal a wax dañuy jaar ci digg bi mhm. ndax euh, nekk nañu ci euh, societé boo xamante ni tey dafa am nu mu tëddee mhm. surtout ci wàllu sëy kii ndaw la dugg ci sëy matul sax nee ñu ñaare ay bés borom këram génn àdduna mhm. donc ñun ñaare yooyu fu mu amee soxna naata dañuy faral di gaafal ko jigéen gi nañ ko wax loolu nag bu ñu ci yegg te xam ne sunu borom moo ñëw ak ndogalam mhm. sànq jaawoo mi ngi koy wax muy lu am solo mooy moom rek ñàkkul bakkanam ci accident bi moom la ak ñeneen yàlla lu mu àtte ci daa jaamam mooy am mhm. jigéen ñi bu ñu leen di gaafal ndax yàlla bu la bindee am na fan woo xamante ne fa la ko natt fa la lay jël muy àpp ba bu jotee nga dem ci ak anam yu mën a demee nag. kenn du weesu sa bis. kenn du weesu sa bis kenn du weesu sa bis donc lu ñuy def rek mooy nañ ko gën a gunge psychologiquement parce que xale la. Mhm. nekkul ak borom këram lu yàgg. dafa metti mu nekk situation boo xamante ni je pense que entourage am war nañ ko dimbali ay dëkkandoom war nañ ko dimbali jigéenu Sénégal ñun ñëpp war nañ ko dimbali te xam ni lii la yàlla dogal. Mhm. amaat na nag ndax duñ euh, naan dund gi fii. dina metti torop nag waaye na defal xolam mhm. te xam ni ëllëg suñu borom mën na ko may beneen borom kër boo xamante ne nii ñu ngi koy ñaanal bu boobaa yàlla na nekk loo xamante ni lu ko jik lay doon mu yàgg ma incha allah Malick ndax euh, bu ñuy wax mariage pour le meilleur et pour le pire dañ naan jusqu'à euh, jusqu'à ce que la mort vous sépare mhm. dañuy ñaan yàlla loolu mu euh, mu yéex daal maanaam waaw dañuy massawu rek soxna si mhm. di massawu tamit waajuru Ibrahima Fall ndax mun nañu wax ni meew mu wayul tuuru na yaakaar tas na euh, ci dem bi mu dem parce que demu demu accident moom amul sax euh, naatable que ne euh, dañ lay maanaam àtte àtte ku nga xam ne da nga da nga dee ci jihaat mhm. donc àla kulial euh, am nañu yaakaar ni yàlla suñu borom dina ko teeru ca si firdawsi beneen bi ci des ndaw la waaye am na ñaari mbir yu nga xam ne ci témoignage soxnaam mën nga ko ci jàpp muy ñaar yi nga xam ne moom lañu yàlla sant muy liggéey ak jaamu yàlla mm-hmm. donc ji euh, mm-hmm. xale bu am diine la mm-hmm. ndax mi ngi doon mébét pour jël wérdu cheikh na euh, cheikh Ahmed Tidiane donc taalibe cheikh la loolu mbir na jullit la loolu mbir na ku fonkoon liggéeyam la loolu mbir donc yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeel lañ koy ñaanal soxna si nag li nga wax rek nañ ko encadrer gunge ko parce que déjà li mu nekk nii di tënj sax xamu ci dara. ndaw la il faut que mag ñi jege ko dëfal ko delloo delloosi ko sur le plan psychologique xam ne yàlla moom moo bind démb tey soog a ñëw. yàlla bindoon na sëy bi ca aras waaye bindoon na yi tamit dee parce que dee la yàlla njëkk bind ko dund. Mhm. donc kullu nafsin saayixatil mawt bakkan bu mus dund di nga mos dee te ku nar a sa bés sa deewin ñaaw mhm. loolu la olof Njaay di faral di wax donc euh, lii mënul woon ñàkk mais na gëm yàlla mhm. parce que mbir mi amul dara il y a que la foi en Dieu mhm. moom moo la mën a dimbali ci yenn a yi yàlla na ko yàlla may xolu muñ amin amin amin merci beaucoup jërëjëf Malick Thiandoum di sant bu baax a baax Marcel Farba Maroun mi ñu jagleel euh, document boobule moom euh, Gamou Diop encore une fois di ko masawu bu baax a baax suñu gan ñëw na léegi léegi lay doon.